yi askan wi naka noonee taalibe ñu ngi koy dund jamono ji lu toll tamit ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak lu teg ni ay élément yu police lañu faral di tuur ngir yokk kaaraange gi yokk kaaraange gi ci Touba moo tax source a di ñu xamal ni kon police tàmbale na wane boppam ba noppi ndax lu jege juróom benn téeméeri nit la police daal di teg loxo te ko waral bokk na ci wàllub càcc jëfandekoo sinébar wala di ko jaay ak yeneen ñaawteef yi nga xamante ne kon ñu ngi koy def ci dëkk bu tedd ba moo tax source a jàpp ni police ma ngay raxas tuuba jamono ji ci réew mi quotidien Serigne Ahmad Karara moo ci àddu waxtaan bu yaa bi mu sekk ak suñu naataango yi doomu Serigne du Kara Mbacké bi wax na ci jaar-jaaram ndaxawaayam ci li nga xamante ne moom mooy yoonub murid waaye tamit li mu wax ci màggal gi ne yaakaarul benn yoon muy nekk li war a yokk mbas mi ci mim réew enquête def enquête am ba xam ana naka la ñenn taalibe yi di dundee ci biir kër sëriñ si bëkk na kii nag ngir nga gis sëriñ bi yenn say faaw nga am ci jaar-jaar jaar-jaaru Macky Sall ci assemblée générale mbootaayu xeet yi ci New York moom la bu njëkk yéene kaay Madiambal Diagne bi dikkaat ci taxawaayu njiitu réew mu Sénégal di woote ngir lëkkaloo waaye tamit jàppalante ci wàllu ñàkku bi waaye tamit ngir sukkali koom-koomu Afrique moom Macky Sall sàkku na lu toll ci ñaar téeméer juróom fukk ak ñaar ni ay milliards ci wàllub dollar bu ko defee koom-koomu afrik gën a ñoŋ laas yéene kaay di ko feelu ne njiitu réew mu Sénégal yemul rek ci layal Afrique ngir wàllu koom-koomam waaye yéene bi dafa yokk ni moom borom APR wax na dëgg njiitu réew yi nga xamante ne ñoo nekkee ca tugal ndax dëgg gi enquête ni mu ko gisee mooy njiitu réew mu Sénégal lool dafa yor kàddu ñi nga xamante ne mënuñoo wax muy kon la voix des sans voix Vox Populi di ci yokk ni sax njiitu réew mu Sénégal moom li mu bëgg mooy ab dil bu bees diggante dendu Afrique ak yeneen dëkk yi rawatina yi gën a am doole colonel Doumbia mooy ki am doole ca Guinée jamono ji ma ngay wëyal waxtaan yi nga xamante ne sumb na ko ak secteur yu bëri yi nekk foofee ca biir réewum Guinée Dakar Times moo ko xamle yéenekaay bi yokk ci ni kon FNDC fësal ñoo doon jàppale Alpha Condé ngir ñetteelu mandat bi nga xamante ne kon def ci soob woon te tegu ko ci yoon ci ab ndajeek taskatu xibaar yi kon le Front national pour la défense de la constitution doon ŋaññee taxawaayub kilifa yooye ak li ñu jàpp ni kon dañoo caxat-caxate constitution bi ngir bëgg-bëgg kii di Alpha konde Vox Populi bëgg ñu indi lu leer ci suuxu bateau Joola ëllëg ñaar fukki fan ak juróom benn ci weerub septembre le jëye goge di def fukki at ak juróom-ñeent bi nga xamante ne kon daal dinay am ci Gàmbi yi ci biir Vox Populi kon njabootu ñi nga xamante ne ñoo ci loru di sàkku kilifa yi gën leen a gëstu taxaw bu baax ñi nga xamante ne ñoo ci gone yi wàllub ndàmpaay yi nga xamante ne tam ba léegi amaguñu ci lu leer loolee bëgg nañu kon kilifa yi tamit daal di ci àddu fukki at ak juróom-ñeent ci ginnaaw Sud Quotidien di xam ne ni kon ba léegi le Joola moom dafa mel ni ab góom la bu wëragul ñiy gaañu dëgg mooy géynday jigéen ñi ci wàllu basketball démb ci demi-finale bu ñu sekkoon ak waa Nigéria la woon ci ñaari afrobasket yu wees yëpp la ñu ci dund mooy ñàkk kàttan bi nga xamante ne équipe bu Sénégal wane na ko ci kanamu champion d'Afrique en titre noonee la ko stade yéenekaay di xamle yéenekaay bi àddut na tamit ci wàllu football ak choc bu ñuy xaar ci Angleterre niki tey ji diggante Chelsea bu Edouard Mendy ak Manchester City mi ngànk raaya gi yéenekaay bi fësal ci nataalub Edouard Mendy ndax lu ñuy xaar ci moom tey bëri na lool ngir mu soowee équipam bi ana ki war a soowee boppam diggante Gris 2 ak Franc li am ba am sunu lamb di ñu xamal ni kon boobule combat ay promoteur ñu ngi koy liggante ngir ñu daal di koy taxawal la saison bu ñu dëgmal la société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon seen revue de presse